juste léegi pour léegi mën a fàttali li nga xamante ni nekk na seen xel yi ah waaye tamit mën nañu tamit démb tamit si dimanche bi ah fii ni moo nekk si suñu suñu beneen place bi aussi amoon na suñuy rakk yoo xamante ni ñàkk nañ fa seen i bakken loolu noonu tamit tey dinañ si waxtaan ak askan bi nga xamante ni tey ñoo ngi ñëw fii di feexal seen i xol donc papi da may topp nànk rek ma daa day waxtaan ak sama tata mu daal may wax nag surtout nag xale yu góor yi nga xamante ni day ñëw fii di jaay grand tri ah. di jënd ay màdd yoo xamante ni du ma du ma du ma wax prix bi dañuy dem xool ñu laaj ko sob solu tey ñi nga xamante ni moo nekk le Dakar ñoo leen seet si woon juste rek pour waxtaan ak yéen ci cadre jënd ak jaay bi nga bi nga xamante ni ah, tey yéen koy def yi nga xamante ni moo nekk ci bi ci plage bi parce que dañuy gis xamante ni jaaykatu màdd yu bari léegi bàyyi nañ léegi du jaayee si koñ yi léegi dañuy ñëw si plage yi du jaay ban intérêt la la moo tax tey ngeen di jógee tey si di def di passe aussi di ñëw fi nga xamante ni moo plage waaw loolu dëgg la ndax parce que couple yi tamit dañuy bëgg ñëw ba ci plage bi pour jënd fi màdd buñ ñëwee màdd yu mën nañ jaay màdd yu deux cent ñun mën nañ ko jaayee cinq cent xam nga rek pour bëgg a bëggal seen yaa gën a xam seen kii mooy lool seen copine yi waaw loolu moo tax ñuy ñëw fii ci plage bi di fi jaay na parce que été bi bu ñëwee suñ nekkee si koñ bi du ñu mën a jaay bu baax gars yi dañuy wàcc ba fii ci tafes bi pour ñu mën a jaay loolu moo tax looloo waral sunu ñëw bi fii. mais léegi tamit parfois du am tamit ñoo ñoo xamante ni day ñëw comme dañuy xool màdd bi gën a ndaw ñu ne leen madd bi lu muy jar euh, exemple madd bi tey bu dee jar fukki dërëm ngeen ne leen 1000 francs di leen tooñ léegi ñoom vite fait rek ñu daal di jënd madd bi 1000 francs. waaw bien sûr ndax parce que day am ñuy ñëw fii su ma nee madd bi comme ça ma yëkkati madd bële ma ne madd bi de 500 lay jar ñu ne ñoom. mën nañ ma ne madd bi ñaata ma ne leen fukki dërëm ñoom ñu fay ma cinq cent ma jaay leen ko xam nga li ma la wax voilà loolu la nag waa mais tamit est-ce que fii tamit yéen jaay bi yéen si gis seen bopp toujours ou bien que ni vacance ba vacance lañ ngeen si gis bopp waaw fii vacance ba vacance de vacance ba laa fii jaay si comme ça été bi rek ndax bu dul été bi moom du ma ñëw fii nii ndax parce que des fois nii day xaw a sedd du bëri ay nit yooyu loolu moo tax mais tamit fii tamit ani tey la ngeen fiy dund ci loo xamante ni comme exemple xam nga bu vacances ñëwee xale yi ndeysaan dañuy ñëw place en tant que ñu bañ a tàggoo te boo xoolee jeune yu bari euh, bu vacances ñëwee dañuy ñàkk seen bakkan si géej yi comme comme démb rek euh, am nañ démb dix personnes yoo xamante ci ay xale ñàkk nañ démb seen seen seen bakkan ci yi. waaw ndax parce que souvent tamit ci parents yi laay wax ndax parce que parents yi bu ñu bàyyee seen doom yi ñoom kese ñooy ñëw géej loo tamit logique daal ci ñoom la. ndax parce que boo jëlee sa doom bu am 12 ans nga ne ko demal géej loolu ñàkk doylu la daal da parce que bëgg naa man ku am ku am responsabilité te say doom nga ñëw ak ñoom place ndànk ñu sangu ndànk nga génnaat ak ñoom boobaa nga xool sa doom contrôler ko mais tamit boo sa doom mu ñëw fii si géej gi lu ko daal tamit ci yow la de du ci xale bi ci moom la ñuy wax mais tey ani tey la ngay conseil sa moroomu jaaykat ñi nga yi nga xamante ne ñoo ngi fii si place bi di jaay te it di indaale seen i njaboot te du duñu contrôler tamit seen i njaboot si si li ñuy def si plage bi ah loolu d'accord ma si bëgg naa tamit xam tey jaay moo ñu fi indi nekkul leneen moo ñu fi indi man bëgg naa parents yi tamit bu ñu indee seen doom yi fii ci plage bi ñuy jéem a surveiller xale yi te tamit xaalis bi neex na trop mais doom moo gën a neex waa keñ loolu la ani tey la ngay conseil ñi nga xamante ni moo nekk le Dakarois 221 ah Dakar waa 221 waaw maa ngi kontaan ci yéen di leen remercier bu baax seen liggéey bi yàlla jëmal leen ci kanam li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal ngeen dem ba yokku daal télé bi ba mu gën a mag yaa ma gën a xam ngeen ñëw fii ñuy bégee ma mu gën a neex waaw keñ loolu laa bëgg. loolu noonu sax lay doo xam naa ne après dañu xool benn jour boo xamante ni moom élément wu Dakar 221 yëpp la ñuy indi. muy góor di jigéen ah bu jaree sax ñi daal si boole waaye sax sunu njiit yi indi leen fi ñu féex a suñuy xool daal daal di jënd màdd lekk mango genre ah waa gis nga ñëw ci njambaan geeg yooyu saf-sapp yi ah, yaa ma gën a a njambaan baa ngi fi mango baxal bi ak màddu doom des fois xale yu góor dañuy ñëw pot yi cinq cent la nga ñëw jaay leen ko ñu def capp seen kuddu xam nga rek pour jéem a góor di daal xam nga góor ñi dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg lu baax bëgg góondi il fo waa il faut waaw il faut tamit nga leen di yokkal grade bi tamit xam nga bu ñëwee nga leen cent franc da ngeen di wàccee seen personnalité il faut nga leen di jaay yu mag yu mille franc yooyu noonu jeex na taa ko lool. daal mën neen daal tey ay genre papi Aline Mbaye ah Ousseynou genre yi daal bu ñëwoon daal pot yu mag li nga jox. waaw bu ñëwee dama leen di jox pot yu mille franc yi rek te xam ne ñoom dañoo am classe. <laughs> man xoolal lii moo ma neex soxna si nee na Aline Mbaye papi. Ousseynou waa biiru balaa góor ñi boo la ñëwee pour mag yi la la leen jaay garantie yi baax na ci góor merci beaucoup. ok merci merci beaucoup. mais rafet nga macha allah. oh merci yaa ma daa <laughs> xeeb. ok à bientôt incha allah sa doom yi nag balaa may dem di ma ci may kenn. ma daa koy takk sagar Fafi <laughs> gis nga de tey moom tata bi xas na leen de mais nag du ma ne xas na leen parce que da leen a tagg donc léegi ah Fafi danga may toppaat nànk rek yi daal day jàdd xool sax instant yi si ban ruq lañ war a aw est ce que du ma aw nii ñu daa koy puluf côté gii daal di xool li nga xamante ni moo fa nekk ak ci ñu dem. xam nga tamit émission bi tey bu tey bi nga xamante ni moo nekk daal ndakaaru tey boo gisee sunu DG mu nekk soo Soya Diagne mu daal di bind concept boobu juste rek dafa bëgg ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi nekk ci ruq yi di liggéey te kenn xamul leen wala boog ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi liggéey te am lu leen metti te amuñu fenn fenn ko ñu koy ñu dem seeti leen ñu génn li nekk seen xol parce que tamit nit ki bu amee naqar fanaanoo ko bu yàggee day metti ci moom. non li ne suñu xol moom mooy juddoo Dakar màgget Dakar war a liggéey. mosoo liggéey mosoo fayeku weer insam la ku ñu gis nag dinañu ñee quoi parce que ay gentleman lañ bu ñu neexoon dem di kojaate di dóoraate am nañ doole xam nga mooy loolu mais xam nga affaire bi xam nga ñun biris bi ñuy nooy nii rek ñun boo ñu fi naroon jële sax day métti parce que ñun toog di ko jooy nii xam nga di ko enjoy nii rek neex na nekk si jaamu incha la di lekk jën boo bees xam ñun xiifu ñu maruñu quoi mais nañ ñu jël ñu la liggéey pour dimbali doomu aadama yi loolu lañ kaa doye quoi am nga soxna. am naa soxna waaw. moo ngi fi wala nekkul. moo ngi fi dama bëgg doon ñaareel. moo ah, man dama laa dama laa noboon moo tax bëggoon la kaa mais dama dama xaw a tiit mën naa nga def ma ñaareel. doomu law laa de ñeme nga lool. Hmm. na audio yi tas après soxna bi papi gis nga xam nga man fu ma demee rek damay bokk. nee naa ko bu takk deuxième femme ah. dañuy takk ay quatre femmes. ay quatre femmes waaw waaw lébu lañ nag doon na suñuy bàyyi nag ah, ah magale waaw papi jële si ñuy exemple yow wax gis nga góor da ngay am man daal du nekk maa koy Aline Mbaye ma jaaga may sa joor kooku copine sax amu ko non Aline Ndew nu mu demee noonu Aline Mbaye Aline Faye papi Ousseynou ak ñaari Babacar yi copine sax amuñu ko non Babacar mi sama papa la sama toma la xam maa leen di wax ne xoolal ñëw leen bés yaa di ngeen am copine am na copine yu bàyyi ne ñëw leen bés a ñu may leen ay copines donc merci beaucoup maa ngi ñëwaat après ñu daal tas vocal yi tas audio yi mu tas ñu daal koy lool tout ça sar <laughs> ay ca papi ba léegi nag euh, yéen a ngi seen bi émission daal Ndakaaru mois bi nag ñooñu taxaw suñu beneen tata duñu def rek loolu rek daal di koy nuyu salaamaaleykum waaleykum salaam rahmatullah tata tur sant bi nan la madame Fall aw Fall madame Fall Fall yi ah, moom bàyyi ma si kii daal Fall yaaram des naa wala <laughs> yaa ko war a laaj loolu moom ma lay delloo laaj. ah dama koy delloo. man mhm. jaga yaaram am na yooyu noonu yëpp. waaw yooyu moom moom xam naa sama xam-xam yeegul. xam-xam bi daal si la yam. si jën yooyu nag fa lañ lay jaayee mhm. daay laaj parce que tey ñi nga xamante ni moo nekk le Dakar wala 221 te di fee ñëwoon juste pour wax pour si cadre jënd ak jaay bi yéen a yi. Mhm. ñu ne woon léegi nañ ñëw waxtaan parce que yéen tamit da ngeen xaw a sonn parce que da ngeen xëy dem marché bëgg a ñëw fii waas raxas ndab def lépp si jigéen waaw comme liggéey bi moom nee naa bu ñoo xool liggéey yi nekk Sénégal yëpp liggéey bi moo gën a métti te am ñoo sant yàlla te xaalis bi demeewul noonu ndax boo xoolee ñun ñi quatre di du matin la ñuy jóg des fois fii ay minuit une heure mooy ngay wàcc vacance presque bu ñëwee doo amati benn temps te dañuy tool période boo xamante ni jën day manqué bagage yëpp day cher heure yooyu nag la ñuy am client mais heure yooyu bagage yi day monté monté ba njaay bi yow dangay ngay xool ne rek moo la si téye mais du question kii bi bari na càmbar càmbar bari na lii daal mais sant yàlla rek comme lii la xam ñu ko accepter rek te nangu dogal yàlla. mais yéen fii nii plat yi ngeen di jaay exemple lan ak lan lay doon. dañuy jaay kii sebon fric ak lakk jën ak ay mool fruits de mer lépp la ñuy jaay ginaar rek lépp la ñuy jaay. léegi prix bi nga cher ban. moyen cher ñu ngi commencé à 1500 nak bagage moom li ko jëndee rek non nga ko mën a tonton wuyul mhm. noonu noonu ko mën a jaayee waaw mais tamit fii est-ce que tamit parfois am plat yoo xamante ne da ngeen ko jaay mille cinq cent léegi exemple benn benn papi daa dee ñëw rek daa dee ànd ak benn amaay ngeen ne leen plat bi mille cent lay jar ñoom nag ñu jox leen dix mille may leen weccet bi ah amatul si tubaab ñoo ko doon defete léegi sax defatuñ ko weccet léegi sénégalais duñ ko def nit ñuul non non non non loolu man de bëreegul de xanaa benn benn ñoom kay dañuy ñëw di la deseel weccet Hmm. ba nii ba nii te parfois bu ñu àndee seeni copines sax duñu xaw a jaay grand trigen waaw am na ñuy jënd c'est peut-être jamono moo métti nit ñi dañuy bëgg du ñu am mais yow mi jaay tam yow yaay dawal yërmande nit man ku si mel ni man man boo ñëwee ni ma lii laa am rek dama lay jaay parce que damay dawal yërmande wax nañu naan tuuti tam barke moo ko gën te ñaan la nit ñi di ñaan seen xol yi di sedd loolu rek sant yàlla la waaw ani tey la ngay conseillé sa moroomu jigéen yi nga xamante ni mois bi ñoo ngi yeewu faja di daan seeni doole ngir rek yóbbu ko njaboot gi waa sant yàlla rek ñu naan Sénégal jigéenu Sénégal moom jàmbaar lañu fajar gi ñun ñuy jóg si xam nañ si dara kaar ñoo si feer marché ñoo fi feer sant yàlla rek waaw macha allah jigéen ñi moom jàmbaar goo ñu tamit jàmbaar lañ dañ ñoo ñu bàyyi ba ñu génn di wuti waaw kon daal da ngay bay moo bi sëñ bi daal lay mere moo tax nga eh, kay eh, taggal genre ñoom ñoo ñu jàppale ndax bu ñu ne woon tamit bu ñu yaatul woon tamit ubbi ñu yoon bi tamit du ñu am fiitu dem ndax ay kilifa lañu bu ñu nee toog leen dañuy toog ndax ñoo ngi ñuy jox mais bëgg tamit développement gën a am moo tax ñu ñuy bàyyi ñu góorgóorlu tamit liggéey tamit te suñu sëy bu baax a baax mais tamit ani tey fii na ngeen ko gisee parce que tey dañu naan su vacances ñëwee rek xale yi parce que fii tey day naan su vacances ñëwee la xale yi dañuy dañuy ñu si bari dañuy seen ndax day di di profité wu si loo xamante ne si géej bi te parfois géej bi ak tamit ni muy feesee dina dem ëpp leen doole ba nga xamante ni bu ñu bëggee génn sax affaire gi dañuy risqué rek waaw loolu moom damay ñaanaat gouvernement bi di ñaan tamit maire Yoff Diouf Sarr mu jàppale maire kii maître nageurs yi parce que dëgg def seen liggéey leen di ñaan leen wutal ay moto pompe parce que bu ñu bu ñu sauvé fii dañuy sonn dañuy def seen sacrifice bu bëree bëri mais xale yi dañuy bëri bëri bëri bu duñu leen mën a téye te kër yi dafa tàng deseetuñu lu dul géej gi la ñu dese léegi nañ leen yokk sécurité bi jàppale maître nageur yi si moto pompe yi ak si yëpp ndax tamit li ñu mën ñoo koy def noonu daal loolu laay ñaanam euh, Macky Sall Marème Faye Sall mi nga xamante ni moom mooy yaay jaboot lañu jàppale si moto de pompe yi xale yi ñoo ngi dee te kenn mën leen tere gée da ngay gis fi xale yi tuuti di ñëw seen yaay sa duñ ko yëg si mel ni man sa mu xëyee dem nga wuti daani sa doom doo tas sa doom demal jàngi lu si bëri bu ñu ñëwee jàngul géej lay juba si doo si xam dara nañ nañ ñaan daal encore gouvernement ñu jàppale maître nageur si moto de pompe yi parce que lu ñu mën tamit ñoo ngi koy def. Mhm. ay ci papi gis nga ba léegi nag ñoo ngi di taxaw wax sunu tonto bi mais dañu def lu lay daal di koy bàyyi mu nuyu asalaamaaleykum tonto. waaw asalaamaaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. tonton bi naka la sant bi. waaw man maa ngi tudd Yankuba Fall. waaw. yaaram Ndiaga Yaram. waaw gi de moom yéen a koy jugé mais wóoruma man. xam <laughs> nga exactement ban faale la faale nu naar wala faale nu lébu wala la. en fait euh, faale nu naar na quoi parce que man je suis de Gaye près de la Mauritanie quoi. mais tonto fii tey ñu ñëw ci euh, plage bi tey daal la fi fekk euh, man tamit li tax tamit ma gën a content aussi parce que dama ñëw fekk la ngay jàppale soxna si ci cadre jënd ndax jaay bi ci cadre client yi tamit ma gis tamit nga am tamit benn benn benn accueil bu rafet boo xamante ne sànq ba léegi maa ngi gis am ak client yi tey complicité boobu exactement lan la. waaw complicité bi du dara parce que suñu borom dafa dogal euh, soo amee soxna bon xëy na am na côté yoo xam ne bon côté biir néeg la. bon yow miy dund ak moom yow yaa ko xam donc loolu ngay dund ak moom moom ngay manifester parce que bu nekkoon soxna soo xam ne aussi dafa am ay divergence yu nekk sama diggante ak moom bon du ma ko accepter sax pour mu ñëw ci plage bi di jaay bon déjà li may yor as bon mën nañ ci jàppalante ñu dund ci mais kon dafa nekk soxna soo xam ni bon yàlla dafa def si moom jom bon ba pare mu am yërmande ba pare aussi xam gëddu borom këram di ko doxal bon am respect bon loolu tamit moo war a taxal man su ma xëyul. ma ñëw jàpp ci liggéey bi comme ni ngeen ko gisee. mais tey tontoo fii ani an na ngeen di dundee élément yi nga xamante ni tey moo nekk ndaw yi nga xamante ni toujours dañuy ñëw si géej bi euh, juste rek pour ñëw féexlu si mais duñ si yam dañuy risqué léeg ngir léeg daay dugg si géej gi ba ba parfois ñu si jëm a ñàkk seen i bakkan voilà bon bon plage BCEAO nag bon nekk na plage boo xam ni vraiment bon luñ ciy jooy rek mooy problème environnement bi mais ci côté xale yi nga xam ni dañuy def baignade bi fii bon am na fi ay maîtres nageurs fi nekk te ñoom ils sont organisés bon li ma ciy cité rek mooy euh, suma doom baay bi sant Fall nga xam ni moom mooy seen mooy président association bi à chaque fois mi ngi veillé ci plage bi di xool bon surtout xale yi nga xam ni dañuy sangu ci côté bi nga xam ni dafa am danger moom bu leen gisee ñu regroupé foofu day ñëw génnee leen yóbbu leen ci beneen côté bi donc ñoom ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan mais ba tey aussi moyens yi doyul parce que tamit ku xam plage BCEAO xam plage xam ni bon presque mën nañu wax ni Dakar moom lañ desee bon moo fi nekk comme plage bo xamné bon ñi fi ñew ak ñi fi fréquenté bari nañ trop surtout moment vacances yi bon xalé yi ken mënu leen maîtriser bon donc il faut ñu loog yokal leen ay moyens bon fexé bon wutal leen bon ay engins yo xamné peut-être bu ñu séné koy lab dinañ mëna a gaaw sauver ko bon depuis que ma nekk fi nak moom man li gis ci seen liggéey rafetlu naa ko trop parce que vraiment yal na yalla bon doli sutura mais amagul danger bo xamné bon bu ñu mëna wax la mais du tere nak bon gouvernement bi japp ci parce que soxla nañ ay moyens Agnès tey la ngay wax tey ah, si li nga xamante ni moo di environnement bi comme sànq ah, sëdd wax ni nga ko doon waxee que ni environnement bi moo nekk li nga ni moo leen gën a yitteel aussi. waay waay waay et puis bon ça me fait mal quoi parce que aussi boo euh, géej dafa nekk loo xam ne bon dafa am secret dafa am mbiru suñu borom yi si nekk le fait que nga nekk sa kër bon am stress bon wala nga feebar boo ñëwee boo taxawee ci plage bi rek déjà da ngay chargé wu donc loolu secret géej la. bi si des mooy bu doon suñu sagolo géej gi dafay set bon ñi ñi nga xam ne ñoo fi nekk yorey restaurant boo defee tour bi léegi nga def caméra bi ci biir restaurant bi doo fi gis benn mbuus wala gis fi benn déchet bon loolu ñun dañ ci dañ ci taxaw guddi ak bëccëg bu ñuy wàcc nettoyé nañu bon code bi ñu am yëpp nañ ko nettoyé fi nga taxaw ni jàkkaarloog plage bi nii yaa ngi gis ñu ngi set wecc mais ak effort yu metti lañ ciy def parce que souvent da nga dajale perméable yi dajale bon bidon yi mais finalement doo ko mën a suul plage bi

bon su ko defee environnement bi mën a bon yëg boppam daal parce que environnement dafa dafa dafa dafa am secret dafa garaaw kon tey ay tey la ngay conseiller li nga xamante ni moo di yeneen maître nageur yi nga ne tey ñoo ngi fii et que tamit yeewu fajar tamit juste rek pour léegi daal day superviser ñi nga xamante ne moo nekk ndaw ndaw yi fii ñëw. bon il ne reste que maître nageur yëpp ay jàmbaar lañu mais aussi am na ñoo xam ne il fallait que ñu gestu leen parce que am na si maître nageur yoo xam ni bon nekk nañ fi bay waaj bon kenn embauché wu leen. bon yaa naa des nageurs yoo xam ne maître nageur yoo xam ni xëy na def nañu faute faute bi ñu def ñu sanctionné leen te ba léegi liggéey bi seen dañ ko bëgg parce que seen métier la ñu ngi koy liggéey te fayuñu leen ci dara bon boo yéegee ci kaw laaj maître nageur yi nekk ci kaw du ñàkk nga gis si ñoo xam ne gouvernement fayu leen dara te ñu ngi def seen liggéey donc loolu na ciy mairie bi taxaw ñu sensibiliser leen xool ñan ñi nga xam ni ñoo ci war a jot seen àq ñu jox leen ko voilà donc tonto merci beaucoup baa ñu nga fàttali ñuy tur beex sant bi. bon man maa ngi tudd Yankuba Fall bon nekk ak suma soxna suma ma liggéeyul maa ngi ci plage bi di ko jàppale suma ñaareel la nag mais ñaareel bu baax la mais aaw bi nag moo liggéey lépp parce que bu xataloon bon du mën a yaatu bon maa ngi leen sant ñoom ñaar ñëpp di leen gërëm gannaaw bi ma santee sama ñaari waajur bon di gërëm sama yaay bu baax bon di ñaan yàlla boo yàlla guddal fayam fanam dool li ko wér ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc papi gis nga suñu tonto ji macha allah nga man nag dama bëgg góor boo xamante ni lépp lu mu am suba ba ngoon bu bu taxee bu ay soxnaam taxee mu am ko fu mu taxaw dee naan lii samay soxnaam moo tax mu am ko xam nga tey góor dëgg góor gu noobul tey nga daay taxaw daal ne carrément maa ngi jàppale sama deuxième femme mais tey su ma demee ba di ko jàppale porte boobu sama première femme mu nekk sama aaw moom moom moo ko tijji donc loolu noonu mën nañuy sag la te tamit yàlla na la suñu borom yàggal bay laax njaboot gi ñuy dem tamit ba nga ba nga xamante ne da ngay toog ñu la koy fàttali naan laan yaa fàttali bu temps la fekkoon place sàngam xam naa loolu tamit ça te fera plaisir bon vraiment man tamit du kontaan trop bon di leen delloo aussi di leen ñaanal waaye ndaw ngeen bon di ñaan yàlla ngeen egg fi ngeen bëgg jëm bañ a am benn ndog et seen site bi aussi yàlla def mu nekk site boo xam ni site bu gën a rëy ci Sénégal bon ba wër àdduna bon di leen ñaanal yàlla boo di sant yàlla bu baax nag sant yàlla bu baax di ñaan Sénégal aussi yàlla na fi yàlla jàmm et si président Macky Sall aussi ñu ngi koy interpellé bon xëy na mu waxtaan ak ministre du commerce bi nga xam ne mooy liggéey ak moom boo ñu dugg ci marché bi seet parce que marché bi cher na trop te am na clients yoo xam ni bon da nga leen am ba pare bu ñu ñëwee da ngay def plaisir rek pour les satisfaire mais parfois doo ci am dara bon liggéey bi plaisir lañ ci am di ko liggéey mais métti na trop waaw métti na trop waaw. donc merci beaucoup tonton à bientôt incha allah donc papi da nga may topp rek ñi daal di continuer si kanam nag mois bi nag dañuy dem seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy toog fi di déguster plat yi neexaayu plat yi neexaayu jën yi ah neexaayu xam nga bagage yi fii tey macha allah affaire yi ay oignon. salaat lépp la ñuy jël c'est yi c'est bon ay caba yi gis nga mooy bi ne ñi ma toogal daaji nañ macha allah xam nga tey man par parfois de même amour bi daa daay toogal samay maman ñu waxtaan kafre genre mais nag li ma si gën a neex tey tey dama ñëw fekk si samay maman ma demandé ñu ne ma ñoom nag lépp lu ñu war a wax seen doom ji moo leen koy waxal kon nañu sëb sëb lu daal di xoolkat lu muy wax asalaamaaleykum maaleykum salaam tu es magnifique merci beaucoup tata man xale laa de <laughs> xale laa de bon e, tey lu ma bëggoon wax rek mooy que booy dem plage e, comme sama morom yi léegi dañuy dem te duñu tàggoo et loolu baaxul booy dem da ngay tàggu sa yaay bu la bàyyee nga dem su la bàyyiwul nga toog man moom mun naa wax ni parfois damay làqatu dem géej mais bu ma ñëwee damay wax maa demoon naa fi mais du ma sangu ndaxte wóorul ak nit yuy lapp si plage bi et tout e, boo ñëwee daal mën nga toog nga fiixlu nga waxtaan mën nga mën nga sangu te doo sori ndax boo soree tamit mën nga lapp et tout léegi nag euh, lu may gën a euh, avis bu may gën a kii euh, lancé pour pour population bi dégg ko mooy que seen doom yi ñu ngi dem seen bakken ngi si xottu gerte ndaxte ñu ngi ñëw si géej bi ñu ngi sangu et tout te yéen doo leen si xam dara balaa ngeen ni bàyyi seen doom yi xool leen bu baax lan si lan ngeen leen ni bàyyi pour balaa ñoo dem te man dama bëgg fii am na sécurité moom macha allah mais nañ ko gën a renforcer ndaxte parfois do gis sax sécurité bi maître nageur yi doo gis sax mm-hmm. normalement amna na am maître nageur ci chaque côté pour que ñi mëna euh, ñi mëna garder garder en vue am sen euh, mëna xol xalé dal lan lañuy def ci lan lañuy def euh, de loin mm-hmm. lool rek la amone lu may lancer et tout mais lay yow kat yi fi nga xamante tay tey ngi fi nekk mais nak maire yi nee na ma yaa won woon bi kon yow genn kat nga <laughs> ah genn kat nga doo dégg ma génn kat bu may génn damay wax sama yaay maa ngi dem fii bu ma bàyyee mu ne waaw bu ma bu ma bàyyiwul nag ma toog ci kër gi nag. bu la bàyyiwul nga toog ci kër gi waaw. mais yow kat bu ñu waxantee dëgg xam nga ni maire yi xamuñu lu xëy ndax maire yi ay ñoom ravin lañ xamoon ay ñoom papa coon yooyu noonu. waaw maire yi moom sol saa lañu sama yaay moom moom moom dafa bëgg Wally Seck <laughs> moom yow chaque jour dama naan ko maa yow moom bëgg Wally Seck mu ne mu ne coon mooy sama xarit moo tax <laughs> donc léegi yow Aliou léegi la ngay conseillé ndaw yi nga xamante day ñëw parce que tey lii tax ma gën a à yow et que plaisir que nga une jeune fille comprendre belle aussi ani <laughs> la ngay ndaw yi nga ñu ce que je vous conseille c'est justement quand vous venez à la plage. Euh, euh, pour vous baigner. Euh, ne partez pas loin, vous pouvez rester euh, près, de, près d'ici. Ne partez pas très loin, car si vous partez très loin, il n'y a, pas des, choses pour vous tenir et tout. vous, pouvez, vous noyer, c'est pour ça. Mais les jeunes, ce que je vous dis, ce, qui est plus avant de partir, il faut demander à vos parents d'abord parce qu'ils euh, ils connaissent bien la vie et nous, on ne connaît pas la vie. Eux, ils nous conseillent de bonnes choses, mais on ne sait pas. Nous, <laughs> nous, on veut faire, on veut bien s'habiller, on veut bien se maquiller pour aller à l'école. Et c'est pas ça, quoi. Quand tu pars à l'école, tu te maquilles bien, maman te dit pourquoi tu portes ça, alors c'est à la mode. Mais quand tu pars à l'école, maman te conseille, ne fais pas ça et tout et tout. Et de moquer nos parents. Et de moquer nos parents. Moi, maman, maman, elle me frappe. Ah elle me frappe souvent parce qu'elle dit, euh, Cathy, toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Quand tu pars, tu veux te maquiller, tu veux être belle et tout. Et c'est pas ça. Quand tu pars à l'école, tu dois, tu dois bien t'habiller et être belle et tout. Mais quand je pars, un jour, je suis partie à l'école, mais quand je suis venue, je suis partie à la plage avec mes amis, sans dire à maman pourtant. Mais deux jours après, je lui ai dit, maman, je j'étais partie à la plage. Elle m'a dit, Cathy, fais bien attention à toi. moi tu t'es pas baignée. Non, maman, je me suis pas baignée. Elle m'a dit, ouais, d'accord, c'est bien. Mais ce que je conseille, euh, c'est quand tu te baignes là, ne pars pas très loin et qu'on renforce bien les, euh, euh, les gardes du corps. On renforce bien pour surveiller les jeunes. Parce que c'est anormal de partir à la plage sans, sans garde du corps et tout. Moi, quand je viens, je viens avec ma maman et, mes tantes. Je viens pas seule, ou bien je viens avec mes amis grandes. Il y a, il y a Tata Mounas, il y a ma maman adorée que j'aime bien. Ah, <laughs> On se chamaille beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Euh, il y a ma tante aussi. Et je lance un gros bisou à mes amis, et surtout euh, Mamadi et les autres. Je les lance un gros bisou, vraiment. Et mon papa aussi, mon oh. papa d'amour, <laughs> mon papa que j'aime bien. Euh, je t'envoie un gros bisou. Je suis à BCAO, on s'est parlé tout à l'heure et tout. C'est le Dakarois 221. C'est le 221. C'est une très bonne chaîne, faut suivre. Et je m'appelle Cathy. merci beaucoup Cathy je suis trop contente waa dëgg tu es magnifiquement belle papi gis nga de macha allah xale bi dafa cekkate xam nga li olof di wax cekkate mooy xale yooyu nga xamante ne mën nañu waxal mag mais mën nañu waxal ndaw te mën nañu waxal ñi di ñëw ay xale bi na ko suboon lafal cat <laughs> papi ñi dem la leen ci <laughs> ay ca papi merci beaucoup ami internet du Dakar waa 221 yéen a ngi woon fii seen bi émission Daalu Dakar tey nag gis ngeen tey fi leen indiloon gis ngeen tamit li nga xamante ne tey moo la leen indiloon tamit seen biir émission tey xam nañ secret yi nga xamante ni moo ngi nekkee si diggante ñi nga xamante ni maître maître nageur yi nga xamante ni ñooy nekkee si plage bi ak tamit secret ñi nga xamante ni moo nekk jaaykat yi nga xamante ni à chaque fois ñoom ñoo jógee seen i kër fajar ay 4 heures du matin 5 du matin rek ku dem marché jënd ay bagage bu ñëwee rek ngir lekk daal di bëggal ndaw yi nga xamante ne ñooy nekkal plage bi donc papi duñ def rek lu rek daal di jox gars yi rendez-vous lundi prochain incha allah mois bi nag comme que sangaar lañ nekk moom ci été lañ nekk xam leen daalu ndakaaru yëpp mun naa ne jéeg peeg peeg deux mois yëpp ci plage bi lañ ko defee daal di gën a xam secret yi daal day gën a xam tamit li nga xamante ni moo di ruuru ak maître nageur yi donc les gars on vous donne rendez-vous incha allah à lundi prochain Papi merci beaucoup di gërëm tamit ñi nga xamante ne moo nekk élément wu Dakar waa 221 yëpp di ko teg tamit loxo si nga xamante moo nekk sunu sunu DG et que tamit di remercier tamit suñu élément yi nga xamante ne moment bi nag dañoo dem tournage ku si mel ni ay ñoomi amaay ay ñoomi Aline Faye ñoomi uh, nga xamante ni moo nekk Thier ñoom tamit ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di leen def liggéey bu am solo uh, ci li nga xamante ne moo ne surtout à Dakar waa 221 donc les gars à bientôt